kor kor kor kër nugum nugum mi weeru kor siru bi man musuma gis lu mel mi man gis lay mom lu ne lay daj lu ne lay wax bu ko di tangé kenn am jam day nugum nugum mi di nugum nugum mi di nugum nugum mi kar nugum nugum mi kar nugum nugum kar nugum nugum mi naka tangor bi kor gi way legi tay mu jeex legi mu neex kor gi ne mom léegi mu jeex kor mom bo demee ya, bal gore na naan wacc dugg nañ ci jàmm fi ah, ne moom fi ne moom fi ne moom alhamdulilah macha allah daanaka mën naa ni la li ma ah, ah, sama sama gars yi nga xam ne ñoom ndeysaan dañu jàpp samay combat ñoom ñëpp yëglu nañu bàyyi Thierno seen kër goo ñëw na joxe na dara waaw <laughs> ñoom ay ñoom Mamadou Lamine baaram na ñoom ñëpp ñëw nañ daal naar sàll itam ñëw na maanaam daal ci gàttal mooy eh, xaalis baa mu ma ciy moy dama bëgg comme que ay seen wajur ay mag lañu te gëj naa leen ñu ne dara ma yabal ko mu julli ji fofu rek bu ko defé ma jox enveloppe bu dul bu démé mu joxal leen dañu yaakaar bu loolu ah, yok mu mëna julli rek ko mo mo dem sama waji lu ko fi dugal génne ko fi ah, ah dama bëgg mu dem rek julli jeeg julli jeeg parents yi nag bu ko defé ma yeewi ko ñom faat yi ñëpp ma jox leen dara ñu ñu ñu ngi ci marché bi bëgg ñu bëgg rek ñu dégg ko baax na xëy na ko waxee ngeen waxtaan ci njëkk ak teranga dina nangu nañ waxtaan rek ngeen bañ xëccio daal lu xëccio loolu mo weesu na waaw wax leen ko ci dekk ak inshallah man moom xaalis bu ma ko banqué damay jooy di daal jël di mer waaye su ma yore som rek <laughs> daanaka damay nekk dara yàlla comme que kër Baye Fall nga waxoon waaw te daanaka lépp antu na waaw lépp antu na ah, ah, delloo sant yàlla daal sama xol ne daal mën naa ne loo joxoñ ma dagg waaw ah. loo bëgg rek demal ci téyeer bi jël mesure na jël fépp na jël fes as lépp na nga jël passé am na ñoo xam ne nii moom mhm. am na VIP yu baax su ma demee yu ñëw ba pare mën nañ ma koo. jeex na loolu moo gën sama yëfi grand dame. waaw grand dame surtout loolu. waaw dama koy bëgg. <laughs> grand dame damaa nekk sama musóor rek sama tagal. tagal waaw tagal ma montre kii wàcc ak montre. ba ma tàkku saa noonu. waaw bu ko nee di laaj ren sax maa bëgg kuy laaj ci déwénal rek ma jox ko kayit <laughs> darñel bi bii bi. loolu jekk naa jekk naa jekk naa xaalis buy dégg waxtaan dafa neex. neex na bokkut ak léegi mu envoyé ma ko euh, dama am problème mu plateforme yeeg yooyu waaw ah, mais boo bu dee dégg waxtaan rek. da ngay daal di mën yu bëree bëri. Ah, kontaan naa ci lool. comme que yàlla def na ci jàmm daal. Mhm. xéwal yi ñëw. yàlla yàlla gën a yokk xéwal rek ñu yàgg koo teewe nag amiin bay neex nag amiin bàkk sañ waaw ñëpp fekk ñi ko fekk woon yëpp ñu mhm. fekkewaat suñu borom yërëm leen sama gars yi dama leen fàtte Cheikh Fall ak suñu mbay Moustapha Mbaye Sampar Sampar Cheikh Fall ndeysaan moom xam nga dañ leen demee woon mhm. mbay Moustapha euh, euh, Cheikh daa gaañu ajjuma nu ànd dem ca rob ba ajjuma ba delsi mbay gaañu kon loolu du hasard yàlla na yàlla yërëm rek rafet nañ jot ci ñoom ak ñeneen ñi nga xam ne fekke woon ko daaw te fekke woon ko sa borom yërëm leen barke borom du wolof njaay day faral di wax nii kër goo gis am na lu koy yëngal ki yëngal réew mi yëngal kër yi jeeg yi dal di koy bëgg di mos xam la mu saf kaka ma ca ka xam boo ko mosut doo ko xam baax lool ci góor gu tëlee ba góor gu gaaw a àgg yow mi xepp sa awra lool bëgg mu toll nu la neex jëfandikool mos xam ba si yow mi nga xam ni yaa am hémorroïde interne wala externe ndoxub siti sonal na lool ma ni njàkk rek jaaxle jeex na ginnaaw ba mos xam ñëwee ci mim réew ngir nga jëfandikoo produit bi di mos xam lu yomb la tàngalal sa ndox ba mu tàng café ba meew jël benn kuddu ne ko si guddi gi yëpp yaay doon seef kër gi di neex loo wax ñu ne waaw boole ko nga ànd ak wér yaram gu mucc ay ngir nga am si lu yomb la gaawal gaaw seeti Serigne Fallou borom mos xam réew mi yëpp ko daal di ràññee ndax produit am bu efficace amul benn effet secondaire numéro de téléphone 78 165 05 78 165 05 ak mos xam moom rekk la ñuy topp xam nañ ko. ah man de dama dama laa dara waaye. nguur si yàkkamti na jàmm am. wala ñu njëkkee napp bi rek. <laughs> ko ayib dayra toog di solo jàllale. Ah, waaw melu. lu la waay man di wax daal lu jàmm waaw xoolal suñu waxtaan yi. ni mu neexee rek xoolal toogee nii koor gi fee ñu war a toog waxtu reer ci jàmm. wala tey wala ci jàmm. ah tamit dëgg ah. boo xoolee boo xoolee xoolal garaay leen di rek. xamal xamal naa leen leen de. waaye yéen a ngi def lu ngeen gëj rek. ah, ah xam nga lu dul jàmm. jàmm ko gën jàmm ko gën. dëgg la nugum yow immense suñu tuwaat tey. Mm-hmm. li nga doon wax yépp ci koor gi def nga. walaay walaay dëgg la dëgg la kër gi këru Baye Fall. appliqué na ko de appliqué na ko. appliqué na ko ndax <laughs> ku ne ñëw na ndogu kër gi ñàpp ku ne ñëw na nangu. walaay dëgg la bu nekkee ci imbécile sa nu mu tuddati. Ah. Ah. ma ne ko nuks ma ko nugum ah, may wayu moo tax bi affaire bi bi leer mu naan ma ko ne nu mu xamoo kii ma ne koo xam. xam ne dëkk loolu rek. Nah, weddi ma tudd jot laaj ko dem daari laa def may magum taaf waa bi chef de quartier bi ñëwee rek si naan dama leen duma chef de quartier bi dañuy quartier ba nag daal ko waxul waaye maa fa yeggoon de nga nit yow yow xaj nga rek maa fa yeggoon amu ma sama yaram tàngee nag damay bëgg nettali waaw xam naa la sama yëf la nettali ngay nga waaye nag maa fa jaarul bu loolu jàddee bëgguma la ko nax waaye naa la ko yeggee ndax sama wóor la dëgg la xaritu mbaaco boobu. waaw dama bëgg fu nu naanee ndox. waaw awa nu àndandoo fa. mooy awa nii awa. mooy ki ma la pël ba waaw pël ba waaw. dernier pël ba waaw. yaa kooku moom dama ko bëgg a. kooku nag moom ginnaaw ginnaaw ay jàmm nag. awa moom faaw faaw na ma. yow déggoo ma naka ma boole ngeen ma ci loolu moom jeex na ma pare. xalaat naa naa. man ma bëgg. buñ mel ne fan soxla yaa soxla yoo xam ne. pourtant loolu loo ci xamul. ni jaay kew ma. ah soxna Mbacke ñoo doon moog faa. waa mbaa waa yow faa xanaa am naa daal dund yër bi ngay soxla wala abdoulaye yow nag nga rek la def faat. naa naa non kii dama bëgg pour baal ko kii tons. saa bu ngeen ci nekkee coow dana bari dimbali ma rek di yàlla. non sérieusement s'il vous plaît. man kii Ablaye jàmmam na ci kër gi. bu dee côté boobu moom jeex na moom jàmmam na. na soxal sedd. ah na ma ci yéen. mu ne woon ba ma jël bii. ah déedéet. <laughs> mën naa bii de jëlal fursa bi. jawaay ah, ah, jëlal fursa bi nag. jawaay ah, jaamu del si ma nag jëlal fursa bi. jawaay tu es vraiment bavard. ah jawaay boo ma saaga man muus la nga naan ay pisa. Eh, eh, eh, boo ma sa boo ma saaga man. ah non ma eh ma da ngay sóob rek. da ngay sóob rek ku xeex. waaye jël li ma wax. loolu la loolu la loolu la loolu la loolu la loolu la loolu la loolu la loolu la loolu la loolu la téye téye la yow loolu sax mooy sànce ah, waa Fatima. am naa sa faras nga bis nag. loolu léegi tey ñun ñëpp ñuy ànd noo di rem. chance doo initié lii nag ñu doomal lii. yow ku maa doo gàncax a la ngay laxas bëri. ah déedéet dama doon koy laxas lii nag rek la xanaa xam ne man man mokkum sakki sax la sumb te yaa jël loxo. yow ah. yow tekki nañ la ko sori nga jëlal sa loxo. déedéet déedéet eh, mu eh, bàyyi ko mu jël loxo. jabaay jabaay jabaay. nekk ci ba tax ah. bàyyi wax ci dama damay soob rek gërëm. dama maa <laughs> dégg sa wax nag. li li yàpp gileem la gileem bu xonq. Hmm. gileem bu xonq la. donc hmm. wàññil wax ji. ah wàññil wax ji moo ne jàmm bu réer. Ablaye loo bëgg. no jam fu am fa wax ja bari man na yap gërëm bu yi sax nima ko beugé nu um faam yi nee ma na faam yi ak gërëm bu xonk am hmm. faal yi hmm <laughs> man hmm. jëmur ko jaxal gën li yewi sama jar baat la ah, ah. am na ko kay ba da nga soxlu baay mi ma bi bi ko ni wax jaxal bi ari ah, ma sa baay da wax tam ku ñu am la ñoo ci jàmm del wax wax dama ne ko numéro ni ba nga waale su tibbi jégué no no hmm. fa ni yaama ko ya duma yaama ko fa faawa Ablaye Naar bu dee daa bëgg na def faral. li ma leen di bett ci waañ yu bari na lool. moo wax dëgg la de. ndax man mii. Ablaye Naar kon dafa yow ñu ngaa def farata suba ak ah, jàmm a naanandoo ñëpp yàlla jàmm di si ci réew mi ko diine yi yàgg bi ci defe aada yi nu nit nu yàgg bi ñu wàññi dara nga takk jabar balaa déwén tons eh, kii san di jaay na ah, ba ko rek man laa pee laa woote tey de uh-huh. man lay jox gafa laa pee ci laa de problème <laughs> waaye dafa am tije jabar ni fa wuti kenn lay mi góorgóorlu ci bopp ah fi mata bu vraiment koor bu mos a woor. Ah, waaw yàlla xam na ne koor ren gi moom dàqal. Mm-hmm. koor ren dafa neex de. non dafa neex parce que li man li ma doon reefe yow gis sama xarit di ko def maanaam toog ak seen famille yi seen xarit. dundoo jàmm daal dafa maa neex mais xam nga imaginer bu tay sama yaay ne ko fi yi nga berfé soxna ak sa dom mais tay xol ko ren gi même amna quelque ciow yu am mu ñak yoy xaru ko mais ñak na ni petit à petit loaso fay soni ah non da wax wax ji wala manam ndank ndank rek lepp dara ma donc ren amna ay retour man ko jëm réparer inshallah dewen ko gëna baax mais xam leen ni yalla xam na ni sama xol sedd na bég ma fier yow sama yaay ayo yok na sa gangan mi ñaaw na trop ay ñaaw no no non no ñoy yow do wara zéro sa xol ah lami nak dédét bay nak dédét ah jaba yow jaba doy jambur kan du doy nak doy mom lu ne lay daj lu ne lay wax kori tange kendo am jam Inugum nugumi, inugum